dimanche fukki fan ak ñeent ci weerub euh, avril atum 2019 mbokk yi ñu nuyu leen ni ñu leen daan nuyoo bu waxtu jotee dimanche bu jot euh, ñu dajeek yéen fii ci seen ëtt bi ñuy woowee li ci dëkk bi ñu gën ko xam ci lii euh, ñu waxtaanee nag dimanche bu jot thème bu am solo noone lañ koy defee itam tey ji ñu ci ànd ak nag ay gam ay kàngam yoo xam ne tey ñoom la ñu invité ñu fas yi waxtaanee itam tem bu am solo Euh, di ci ànd ak euh, suñu chroniqueuse yi nga xam ne léegi euh, xame ràññee ngeen leen ci émission bi muy ñu ñu xam itam ci Sénégal kenn du leen présenté sama ndeyjoor Fatou Sow Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mouhamadou Lamine mm-hmm. di dalal suñu gan yi fi nekk ak di nuyu suñu ñu ngi xam ne ñu ngi ñuy seetaan yëpp. jërëjëf Fatou Sow Sarr ci beneen wàll gi Hélène Tine mm-hmm. Hélène maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay MLK. Mm-hmm. di nuyu waa Sénégal yëpp ñuy déglu à travers le monde aussi. Mm-hmm. di dalal aussi suñu gan yi ni ko fàtt waxee. Mm-hmm. di kontaan ci seen teewaay ci suñu émission. très bien mm-hmm. gan yooyee euh, bokk na ci euh, colonel euh, Seydina Silla nekkoon directeur des parcs nationaux nekkoon itam lii di directeur Westland nekk actuel directeur de nature communauté développement colonel maa ngi lay nuyu. leen nuyu. di kontaan bu baax a baax a baax ñoo fekk jataay bi daanaa am occasion di leen gis waaye tey dañ ne ma tey danga nga nekk acteur kon nag naa am mbégte ànd ak yéen waxtaan si si li nga xam ne mootañ ñëw fi tey jërëjëf euh, colonel euh, ci beneen wàll gi euh, Cheikh Gueye Euh, moom ñëw na fii benn yoon ci émission mm. euh, lii euh, tey mooy ñaareel bi yoon muy ñëw fii moom xam-xam dafa maanaam chercheur la mm. di liggéeye foofee ca ENDA Thiermone Cheikh Gueye mm. ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu di la nuyu yow MLK di nuyu sa chroniqueuse yi donc sama sœur faatu Sarr ak ki nga xamee ni aussi sama soppe la même bu ñu xamantewul muy Hélène di euh, rafetlu bu baax euh, daje bi ñu fi daje ak euh, Seydina Issa Laye mm-hmm. di sant bu baax pol Ndiaye professeur Paul Ndiaye bi nga xam ne ni moo ñu boole ak moom mm-hmm. ndax xam-xamam di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu seen public bi ñuy seetaan yëpp. Mm-hmm. jërëjëf Cheikh Gueye ci écran tactile bi ni ñu ko defee woon dimanche bële. Eh, tey itam kii di Astou Kane Dione moo fi teew Astou maa ngi lay nuyu. maa di nuyu sa invité yi ak sa chroniqueur yi ngay àndal euh, tous les dimanches di wax rek ni euh, on est encore là pour vous présenter euh, tout ce qui se passe sur internet notamment sur Facebook Twitter WhatsApp et aussi fépp fi nga xamante ni daal yéen a ngi fay nekk. yéen internautes yi am envie participer ci débat bi c'est simple aujourd'hui l'émission portera sur le thème Léniaye une zone agricole en péril donc képp ki nga xamante ni rek am nga envie daal di participer 2STV pense à vous donc mën ngeen participer euh, sur Facebook sur notre page officielle qui est bien sûr 2STV l'officiel vous message privé wala ngeen participer si direct bi on a déjà lancé le direct vous voyez les messages euh, sont déjà et les euh, donc euh, ngeen dem Twitter également vous pouvez réagir là-bas ou bien envoyez-nous un message sur WhatsApp au double zéro double zéro voilà de préférence les messages écrits. très bien voilà. Euh, kon bu ngeen di euh, bind message rek na ngeen ko bind ngeen bañ koo wax mu bañ doon ojo ndax su doonee ojo duñ ko mën a lire loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax. nu koy defee nag dimanche bu jot euh, pàcc bu njëkk bi la ñuy tàmbalee mu jëm ci wàllu actualité actualité nag tey dañuy dem foofee ca Saint-Louis université Gaston Berger. nga xam ne ci biir bés bi am na ay fitna yoo xam ne euh, judd na fa diggante euh, jàngalekat ya ak sax kilifaay université ba ak ndongo yi ndongo yi nga xam ne euh, ñi ngi doon ñaxtu lu jëm ci wàllu assainissement xam ngeen ni ay weer a ngi ñi ngi joytu li nga xam ne moo jëm ci seen moroom ndongo bi nga xam ne faatoon nañu ko lii ñëw dolleeku ci Euh, ñoom nag euh, ñu euh, jéem ko fajal seen bopp jël ndox mu tilim ndox mu salte yóbbu ko foofee ci recteur ba ci rectorat ba ngeen jégal ma daal di ko fay sotti ñu teewlu élément Moussa Diagne ñëwaat. gannaaw acte yu ñaaw yi nga xamee ni def nañ ko fi nga xamee ni moom moo di ci bureau rectorat bu université Gaston Berger bu Saint-Louis te ñooñu ñëpp nag doon ay étudiants yi nga xamee ni ñoo ko def responsable du syndicat bu PATS ñoom nag génnoon nañu tey ji amal nag assemblée générale ngir nag ñàkk a rafetlu li nga xame ni rek moom la ñu def ci bureau boobu waaye tamit am ci ñenn ci ñoom ñoo xam ni toroxal nañ leen ci noonu nag ñuy ñaan ngir nag mu am ay sanctions yu mag yoo xam ni daan ko teg ñu yooyu. salle bi mais automatiquement la ñu dem ci bureau recteur bi sotti ko au UG yi sotti ko également bureau mi yëpp xam nga yooyu ay acte animosité la yooyu warul sax xew sax ci temple de savoir ni ko Ousmane waxee sànq mooy 15 mai bi passé xam nga lu ne def nañ ko ti université bi taal ko ba léegi université bi amul tul archive diplôme yi naaw na kayit yi naaw na tey budul woon rek ñun suñu courage ak suñu ëmm bëgg rek liggéey kon amaana benn personnel du liggéey ndax condition yi liggéey tey métti na tey ñoo ngi nii di rattrapage an di def rattrapage année di fexe étudiants yi nan la ñu jàngee nan la ñu defee examen ñu nekk ci loolu ñoom revendication yu ñuy wax fu tegaguñu sa gouvernement bu bees ndax ay assainissement ay yi kooku mbiru gouvernement la mais nanu jàng ba affaire ba bu jeex mais ñoo nekk saccage nit ñi ñoo bëgg leen rey. ñi nga xamee ni tamit ñoom ñoo di waa CROUS liggéeykat yi nga xamee ni ñoo fa nekk ñoom tamit ñàkk rafetlu li nga xamee ni rek moo di jëfin gu ñaaw gi nga xamee ni étudiants yi def nañ leen ko te nag ñoom tamit ñuy ñaan lu ñu mel la. yamuñu foofu ñu ñëw au CROUS dem service de l'hébergement attaqué bureau chef service hébergement ba saccagé ko sotti fa ay ay yu kenn xamul. Euh, saaga ña fa nekkoon song agent ya nekkoon au niveau de l' assainissement def leen la même chose loolu nag ñu ni luy doy doy na bés naka tey ñun liggéeykatu travailleur CROUS dootu nangu lu mel noonu di am fii ci biir kër gi fu mu nekk nii professeur universitaire yi nga xam ne ñoo fi nekk ak travailleurs yi ñoom ñëpp daal waat na nu li nga xamee ni rek moom moo di seeni ay ngànnaay ngir nag jàkkaarloo ak ñi nga xamee ni ñoom ñoo di étudiants yi mu ngoog euh, ñu gërëm ko sant ko moom moom di Moussa Diagne nekk correspondant bu 2STV foofee ca Saint-Louis euh, kii directeur bi nag moom fas na yéene ni kii ëllëg ci altine ji déposé plainte ca procureur de la République ngir euh, li nga xam ne moo di yoon def liggéeyam Université Gaston Berger bu Saint-Louis faatu ñu yàgg ko considéré comme université de d'excellence waaye mu mel ni ñoom tam léegi li xew université bu dakaaru mi ngi leen di bëgg li wokk université bu Dakar ngi leen di bëgg a xuri waaw dañ koy naqarlu parce que bi ñu fi tegee Gaston Berger dañ ko defoon université d'excellence mhm. euh, di sélectionner ña fa waroon di nekk mhm. mu jur aussi y a de cadres aujourd'hui ci Sénégal ñu ñu ràññee ils ont eu de bon produits mhm. loolu la ñu mënoon mën a wax mais mu dem ba jëmbi jamono euh, ñu ñu ñu changer règle du jeu mujj université bi di jël lu ëpp lu mu attan euh, condition de pédagogie bi suivre ñu. Mhm. condition matériel yi suivre suivre ñu parce que université Gaston Berger dafa sore dëkk. dama mhm. sore ndar. ci àll la nekk. ci àll la nekk donc am na temps xale yi lekk lañ doon xee mhm. wax affaire duñ ticket restaurant et cetera. moi je pense que li fi am kenn war ko ñëpp ko ñaawlu euh, parce que. dem ba ñuy àgg dans un espace d'éducation si ay jàmmarloo yu mel noonu. war nañ taxaw xool naka lañ koy régler mais problème boo koy régler il faut aller aux causes parce que tu ne peux pas te limiter aux ni tey lii moo fës rek parce que li li li mu jur yàgg na. Mm-hmm. ñu toog ko parce que université Gaston Berger xeex nañ fa ay lacrymogène jip am xale yu fa xam ne sax seen ay kii nañu dagg nañ seen ay organes. ci mm-hmm. loolu ñu am des blessés très graves. Mm-hmm. amoon na fi donc. pratiquement dafa am une chose cyclique bi continuer di ñëw euh, niveau d'information bi ngay toll du la mën tax nga ni kii wala kale mhm. foog nga am l'information complète mhm. des différents protagonistes ñoo may weer a ngi nii ah, waaw ñuy ñuy ñuy ñaxtu mbirum assainissement bi waaw parce que ndox mi day ball ci seen biir néegi restaurant waaw moo tax peut-être que le reportage aurait dû aussi leur tendre le micro mhm. ba ñoom tam ñu mën a wax qu'est-ce qui s'est passé quoi qu'il en dem espace d'éducation ñuy àgg ci lii warut waru warutu fi mën am mhm. donc jot na peut-être que les autorités prennent leur responsabilité bon xëy na la responsabilité ce n'est pas l'escalade juridique aussi euh, euh, euh, foog am na ku tooñ quelque part mhm. problème bi am na fu mu nekk est-ce que dañu war a continuer escalade ba ba ba mu ba mu dem ba jéggi loxo mhm. Euh, wala naka la ñu mën a toog ba am solution donc xëy na mënatuñu bàyyi rek université bi si seen bopp entre élèves étudiants yi ak personnel euh, pédagogique bi ak personnel administratif bi parce que jot na xëy na ñeneen dugal ci seen lox mhm. euh, maintenant foog ñu teeylu parce que ñu ngi ci romandaat yu bare. Mhm. ni lu lu indi loolu mais comme amuñu si ñun firnde du ñu ci mën di xuus li ñu mën rek moo di moo di ñaawlu loolu mhm. interpeller les autorités à prendre leurs responsabilités xëy na c'est le moment de définitivement régler ce problème ba nga xam ni loolu dootul continuer du fi am. Mhm. Hélène euh, impliqué li nga xam ne moo di yeneen acteur parce que lu yàggul xëy na sax ci réforme euh, enseignement supérieur bi prévoir prévoiroon nañu ci lii di conseil d'administration bu université. en tout cas bu Ndakaaru ñu dugal ci yeneen acteur comme ay hommes d'affaires ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dinañu bu lu mel nii euh, amee comme ni ko Fatou waxee ñu mën ci joxe seen kàddu mu bañ a doon rek li yoo xam ne day dox diggante euh, ndongo yi jàngalekat yi ak administration bi waaye mu doon loo xam ne sénégalais yëpp ñoom ñoo koy seek est-ce que solution bi du loolu en fait. waaw jërëjëf MLK euh, peut-être may wax ni Fatou rek ne kenn mënul rafetlu jëf yiñ fa dégg. te foog naa ni ndongo yi seen bopp euh, weddi wuñu ne def nañ ko lu ñu wax nee na ñu ngi jéggalu tout à fait reconnaître nañ ko mais ñu ngi jéggalu mhm. bu fekkee ne nag ay gune juum nañu dem ba reconnaître ne juum nañu jéggalu xalaat naa ne war nañ mën a toog waxtaane ko moo gën ñu di ko yóbbu yoon mhm. man maa ngi ciy lancé appel autorité yi bu baax a baax parce aussi comme ni ko Fatou waxee université bi yàgg na bëri ay tolof tolof naga nii daaw lañ fa amoon ndongo buñ fa faat kon nag day dañu war a apaiser situation bi. Mhm. parce que comme ni ñu wax ndongo yi dégg nañ leen mais li ñu wax ne aussi moo fa am mooy ndoxu foos buy bal ca fa ñuy lekkee fa ñuy fanaan ak fa ñuy jàngee loolu it su fekkee am na nekk na loo xam ne doy na waar. Mhm. ak diir biñ ko waroon jël en charge. kon foog naa ne kon dañuy woote tey fast track. ci seen wax ñoom. am nañu sax benn ndaje boo xam ne amaloon nañ ko seen digganteeg ONAS. waaw rectorat bi ak SDE. xam nga xam nga xam nga tey lii di xew. tey jii nee nañ dañuy woote fast track mooy nañu fexe aussi ba administration yi ak euh, euh, mën a réagir à temps. Mm-hmm. parce que loolu xeweewul foofu kese man maa ngi romb deux voies wu karak yi keroog. Mm-hmm. semaine passée lundi dernier mais ma fekk fa force boo xam ne mu ngi bal jógee koo karak. di wàcc allées say say allées allées allées nu mu tudd les deux allées qui descendent surface. Mhm. mais deux allées yëpp y de l'eau euh, de l'eau usée. alors c'est un problème donc man je di que il faut que ñuy apprendre à réagir le plus rapidement. Mhm. parce que ça a un impact sur la santé. Mm -hmm. cela dit wax nga ko il faut que université je sais que en un moment donné comme ni nga wax mu ñu defoon nañ ko si réforme bi. Mhm. gis naa ne université de Thiès amoon na temps ñu seet directeur généralu xaw ma seen bis la woon euh, xawma kanati ñu ñëw ne ko ne nañu dugal ut benn poolu homme d'affaires mm-hmm. ak yoo xam ne wala ay nit ñu ñu ràññee ci seen secteur ñu ni leen kaay leen ngeen dugal seen loxo mm-hmm. ci doxalinu université bi foog naa su loolu amee ba ñu doxal ko correctement mm-hmm. war na mën a jàppale ñu bañ a bàyyi rek ndongo yi. Mm-hmm. ak administration universitaire bi ñoomi kese. te nga xam ne tension demoon nañ bu médiateur xam nga président je pense que université yëpp am nañ médiateur. Mm-hmm. waaye nañ ci nañu yaatal. yaatal euh, mbir mi université bi na nekk pour ñun ñëpp. ndax suñuy doom ñoo fay dem. te ëllëg it ëllëgu Sénégal. Mm-hmm. foofu la ñuy tàggatee. ëllëgu Sénégal. très bien jërëjëf Hélène ñu dem seeti peut-être internautes yi ndax euh, réagir nañu ci actu bi Astou effectivement ñi ngi réagir euh, en même temps que seen ay intervention parce que bu ñu xoolee ci WhatsApp bi Il euh, y a euh, celui-là, il dit que bonsoir, j'apprécie beaucoup l'émission où l'État du Sénégal a creusé 11 forages à Diender, zone des Niayes, pour ravitailler Dakar en eau potable. Au même moment, le président nous parle de la préservation de cette zone. Mm. Comment peut-on expliquer ce paradoxe loolu moom ci thème bi <laughs> am na benn genre voilà mm. contradiction bu am ci mbir bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex ak mm. li état bi di def maanaam forage yi nga xam ne jot nañ ko fa tabax donc hmm. bu ñu ñëwee aussi ci fi nga xamante ni moom moo di live bi ñuy lancé Facebook kii di Papa Mor kan moom mi ngi wax ni qu'est-ce qui n'est pas en péril qu'est-ce qui n'est en péril même la morale est en bas hmm. désolation totale je me dis toujours si le Sénégal doit utiliser les arrobases tout est en péril dans ce pays très bien voilà kon astu euh, tegal foofu sa baaraam ñoom dañuy anticiper ci euh, thème bi soo guñ ci waxtaan bi Cheikh am nga ci euh, Euh, waaw euh, constat bi nga xamee ni moom la euh, suñu suñu xarit yi def rek moom la ñuy dëggal. Mhm. li ma ci xaw a dolli tuuti mooy généralisation contestation. Mhm. ak conflit ci suñu université yi. Mhm. dafa dafa dafa am dafa am doole ba yaakaar sax ni université noonu la war a bindoo. alors que suñu université c'est norme dañu dem ba yaakaar ni yaakaar mooy norme <laughs> mais boo ko boo te boo ko xoolee loolu warul nekk norme mm-hmm. déjà boo xoolee euh, conflit bi am nii euh, mi ngi mujjee ci diggante ki nga xamee ni jàngalekat la ak ndongo bi muy jàngal mm-hmm. ba euh, jàngalekat yi mere fi mu nekk nii seeni dongo loolu moom bu amee mm-hmm. dongo bi xam nga moo tooñ waaw waaye yaakaar naa ni problème problème structurel la Euh, suñu université yi ni ñuy fonctionner li nga xamee ni moom lañu fay investir ni nga xamee ni noonu lay fonctionner ak seen densité loolu moo indi problème yëpp. très bien colonel am nga ci kàddu euh, benn baat boo ci bëgg a sànni très rapidement. li ñu wax te si dolli ne. Mhm. lii sama naataango bi wax afro densité dafa nekk général wax na sànq euh, karak. Mhm. loolu dafa normal si si daanaka dans une mauvaise organisation mënoo jël une population qui est calibrée avec des réseaux calibrés nga og la population nga bëgg les mêmes fonctions des candidations là mu nekk fonctionnel loolu moo nekk. mënul nekk très bien très bien colonel ñu dem ci euh, suñu ñaareelu poñ euh, lii di actualité euh, lii di fédération sénégalaise des boulangers. yëkkati nañ seen kàddu ñoom nag nee nañu boo moywul euh, dinañu dakkal lii di production mburu mi lu toll ci ñetti fan loole nag mi ngi ci mi ngi tukkee ci li nga xam ne mooy li ñuy ñaawlu mooy yokkute gi nga xam ne am na ci euh, njëgu farine li njëgu fariñ li nag jóge na ci 16000 francs CFA dem ba ci 18500 euh, yokkute goo xam ne toll na ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ñu teewlu Fatima Diallo. askanu Sénégal boo moyewul dina dinañu toog ay fan du duñu gis bay sax am mburu loolu nag fédération des boulangers du Sénégal ñoo ko xamle woon bi njàkkaarloog taskatu xibaar yi niki àjjuma bi nu weesu ne woon nanu nag dinañu toog ñetti fan boo xam ne mburu du am biir Sénégal loolu nag dañ ko def ngir sénégalais yi mën a xam ne ñoom dañu sonn waaye it war nañu leen bàyyi xel moo waral nag ñoom boulanger yi ñuy ñaan ñu convoqué lu gën a gaaw conseil national consommation ngir ñu mën a déterminer déterminer njëgu gramme mburu bi ak it niñ koy jaaye ci marché bi ci baguette 250 grammes bi nga xam ne bëggu nañ ko yóbbu ñeent fukki dërëm bu ñu sukkandikoo ci amadu gay nekk ki jiite boulanger yu Sénégal homologation bu ñu defoon ci njëgu mburu bi ci atub 2014 loolu weesu nañ ko teyit nag teguwul fenn ndax nee na li ko bett mooy ministre bu yor wàllu njënd meeg njaay mi ak association consommateur bu Sénégal ci loolu lañu sukkandiku ngir wax ni ñoom boulanger yi njëgu mburu bi looloo waral nag muy xamle ni ñoom li ñuy wax ci yoon lañu ko teg ndax xam na nañu révision njëgu mburu bi faaw nag mu am ci processus bu mu jaar léegi kay lenn rek moo des ci mbir mi ndax boulanger yi comme niñ ko waxee woon bi ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi ne dañuy dakkal defar mburu bi ci ñetti fan ndax loolu dinañ ko tàmbali ci semaine bii nu jëm wala déet léegi kay dañuy xool lekk ba xam waneent fu muy mujj ki gëtëm jërëjëf euh, Fatimata Diallo ci élément boobule Fatou ci 2014 la ñu homologué woon lii du njëgu mburu li euh, njëgu euh, farine bi yokk na logiquement xanaa njëgu mburu bi war naa yokkam am déet. man au-delà de ces questions de prix. Mhm. indicateur bu important la sur société sénégalaise aujourd'hui mhm. bu ñu demee ba mburu jiital ñu si suñu dund. Mm. parce que mburu du rek lu ñuy ndekkee. Mhm. léegi foo tourné kenn reeratul sa kër. waaw ci mbedd bi da ngay dem sa mbedd mi la ñuy lekk te la mhm. ñuy dem sa mbedd moom mburu bi lañuy jël dugal la ci benn soos bu ndaw <laughs> boo xam ne soble la. Mhm. wala wala ñebbe wala ay ñebbe ak ay spaghetti donc mburu mi ngi dem am doole boo xam ni euh, niveau de vie population yi. lay posé question léegi. parce que en même temps mu nar am un impact très négatif sur la santé de population mais euh, nit ñi bu ñu ñàkkee. indicateur de pauvreté pour man parce que waroon nañ dem ba bañ fi xeex xeexu mburu mhm. suñu éduqué woon population yi ba ñu dellu su parce que aujourd'hui wu problème du santé mhm. problème de santé di posé wu ci ci Sénégal te te mburu bi dafa am un impact négatif aussi sur la santé des population en termes de diabète parce que ay glucides la ak yooyu bon bref peu importe loolu éducation la mhm. mais de notre côté c'est la réalité de population ñoom amutuñu moyen wu en tout cas lekke neneen dem nañ ba mode de vie bi installé wu fi bon li nga wax bu bu bu bu njëgu farine yokkoo njëgu mburu war na yokku bo là euh, moi je ne suis pas spécialiste pour xam réellement est-ce que quel est le coût réel. incidence bi quoi incidence bi sur ce sur ce sur ce mm-hmm. parce que en même temps les populations se plaignent amuñu qualité mburu bi ñu bëgg euh, pois wu mburu bi kenn xamul lu mu toll yaa a un problème de contrôle économique pour voir ku nekk luy sa àq. Mm-hmm. war nañ jox euh, ñi ñiy liggéey ci mburu bi. war nañ am seen àq parce que képp kuy liggéey da si bëgg dund. Mhm. en tout cas suturlu ci. Mhm. mais bu fekkee dangay dem ba liggéey ba amatuloo sa bénéfice. Mhm. effectivement ça pose problème pour ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci secteur boobu. mais man au delà de toutes ces questions war nañ taxaw seetlu euh, pour xam euh, nu mu nu mu joué ci pauvreté wu. Euh, population bi nu muy joué ci santé wu population bi parce que waroon nañ nekk tey bañ di fi wax ay mburu farine mais delluwaat si euh, comment enrichir buñ fi comment nan lañ mën yokkee qualité bi ak d' yàlla y a le maïs mm. de choses mm. et et puis ñun de façon dañ koy importer en mm-hmm. plus donc ça va poser sur notre balance commerciale bu ñu fi naaree dem ba mel na naari parce que naari ñoom buru mooy seen dudd bis bu mburu amee crise rek dëkk ba la preuve mu ngi ni Bachir Mboro ko daaneel. Mhm. bon man nag ñaanuma Sénégal dem di àgg ba mburu di nekk un central. dans notre alimentation ba bis bu amee crise dëkk bi toog mais pourtant ñi ngi si tànk yooyu j'ai l'impression parce que reer la léegi. Mhm. dootu rek dootu rek mburu la reer mburu la <laughs> très euh, mburu moo daaneel Bachir kon euh, mburu jar naa moytu euh, ndax dañu war a jóge ci mburu xool xëy na peut-être nu ñuy rééduquer rééduquer suñu société ñu delluwaat ci fonde yeeg laax yeeg cere jeeg yu ni mel ndax bi jamono di euh, baax dëgg Euh, cere lañu cere lañu xam ñun en tout cas séeréer yi cere lañu xam. <laughs> yaa ngi toñ <laughs> séeréer yi xamuñu mburu te te xam nga bu ñu waxee mburu moom sama hmm. mbokk alpulaar yi ñooy tax <laughs> maa ngi nag. wetu séeréer yi jaaxle depuis bi ñu waxee 72 heures sans production de pain ba léegi séeréer lañu jaaxle. xam nga daf may njëkkantu rek mais amul problème. Hmm. Euh, bon man man man je pense que euh, problème mu mburu bi man jéem naa laajte parce que fi ñu jëm nii. Euh, xam nga soo xoolee ren ji soudure bi nar na metti moo tax buñ nee nañu seet ndax dañuy alternative yi fonde yeeg yooyu man li ma xam département de Thiès ci gox yu bëri xaw ma ndax nguur gi gëstu na ko bu baax mooy lañu góob ren bëriwul ndax taw bi demewul noonu kon boo undee alternative ñoom buñ sañoon loolu dugub dugub kenn bayatu ko parce que mais même ñi doon béy même ñi ah, doon béy dugub même ñi doon béy dugub tey amuñu loo xam ne tey permettre na leen. la sécurité alimentaire. tey ñu mën a gere loolu. Mm-hmm. donc même suñ ko bëggoon te man xalaat naa ne moo gën a wér. Mm-hmm. moo ëpp comme ni ko Fatou waxee moo ëpp maanaam. Euh, njëriñ mm-hmm. ci ci wërgu yaram ak ci dundal euh, maanaam nit ki que mburu mi. bien que mburu mi tey dafa dem ba dugg ci suñu. Euh, Euh, kii de alimentation hmm. muy comme ni ngeen ko waxee habitude alimentaire hmm. euh, te ñu ngi jëm nag ci weeru koor gi xam nga yaa ngi wax séeréer yi te <laughs> weeru koor gaa ngi ñëw te te mburu mi xam nga solo solo bi fi am tout à fait mais bi ma gëstoo ci tuuti ci yëfu mburu bi bi ma ko déggee gis naa ñu ni concertation yi amoon hmm. entre les meuniers les boulangers ak les les les euh, les les associations de consommateurs dañu homologué woon prix yëpp muy prix farine muy prix mburu c'était en 2014. ba léegi ñu bloqué ko yëpp mais ci diggante bi am na peut-être yeneen facteurs yu tax ba meññee yi tey ñu. ñu yokk njëgu farine bi njëgu farine bi mu nar a impacté si biir njëgu mburu bi. Mhm. mais ni man ni ma xalaat mooy filière bi te di ma ci jot a wax laaj seen xalaat mooy dañu ne filière bi dañ ko war a xoolaat parce que mburu mi dafa bëri ay problèmes. Mhm. te soo demee ba ci biir sax. Euh, entre kiy produire muy boulanger bi kiy distribuer ak kiy jaay suñu xoolaatee marge yi war nañ mën fexe ba consommateur bi continuer di jëndee mburu mhm. la mu ko doon jëndee mooy nañu jéem a équilibrer xoolaat marge yi ba nga xam ne coow du war a jip mhm. donc suñu amul alternative mooy suñuy euh, euh, maanaam dugub suñu ay mboq nañ ko daan xamee. Mhm. ñii di def seen làcciri ñii di mhm. def seen fonde. ak sànqal ñii di def seen sànqal ak seen laax. Mhm. buñ ko munul am. buñ ko amagul wala ñu di ko yóotu wala contexte mayu nañu xool nu ñuy def ba jàppale askan wi parce que nag ah même su fekkee gënul ci wërgu yaram feesal na biir. te nag su ñu demoon tey ba lu mel ni mburu tey bëgg fee jógee comme ni Fatou wax xeexu mburu am naa ne alpulaar yi buñ jógee séréer yi jóg <laughs> joolaa yi jóg l'hégémonie du pain non affaire bi duñ ci génn <laughs> euh. kon nañu jéem a xool nu ñuy réorganiser filière bi uh-huh. te wax nañ ma ne am na boulangerie yu bëri aussi dañuy nekk ñoom maanaam amuñu sax autorisation da ngay uh-huh. ubbi sa garage rek uh-huh. daal di commencer installer wu di produit sa mburu question d'hygiène yi waxuñu ko ni ñuy transporter mburu mi ba mu yegg ci consommateur yi problème la mhm. kon tey bu buñ nee dañuy yokk dañ leen di wax ne waruñoo dem grève nañu toog ñu waxtaanaat mhm. pourtant ñoom loolu la ñu laaj conseil national euh, mais loolu li li loolu nañ ko nañ ko taaj ñu jéem a xool secteur bi naka lañ koy wax ak meññee yi aussi mhm. wax ku nekk parce que ci li ma dégg 500 francs foog naa moo yokk ci prix plafond bi ñu waxoon. Mm. moo doon 18000. Mm-hmm. tey foog naa ñu ngi ci 18500. ñu ngi ci waaw 18500. donc nañu xool ndax 500 francs boobu nu ñu koy fexee. Mm-hmm. ba mu bañ a bi moom sonn na. te xam naa ne tey kenn xalaat xalaatul yokk dërëm ci la muy jëndee mburu. très bien waaw. Astou mburu mi waaw. on se voit que mburu moom ñëpp la intéressé parce que les internautes sont en train de réagir. Euh, par rapport euh, voilà ki nga xam ne moo di Tarek Ramdan Diop moom. il estime que c'est la qualité du pain qui importe le plus mais pas le prix mmh. donc euh, ki nga xam ne moom moo di Mao Fall dafa ni moom avant d'augmenter le prix, les prix, il faudra respecter les normes d'hygiène. Mm Et le problème de poids du pain oui, reste toujours à désirer. Tout à parce que moom peut-être dafa jàpp ne norme bi yi ñu war a respecter ci wàllum hygiène. Mhm. ba tey euh, Sénégal respecté guñ ko donc les réactions aussi c'est sur WhatsApp. voilà nous allons y revenir euh, tout de suite. très euh, Cheikh yow mburu ngay ndekkee am laax. waaw man mburu laay ndekkee <laughs> euh, mais je pense que ku nekk mi ngi ci rôle am. Hmm. commerçant bu sañoon bu bu defaree wala mu am marchandise am. marchandise bi jaay ko njëkk loo xam ne dina ci yëg boppam dina ci yëg boppam. nguur gi moo ñu représenté donc moom it dafa war a xool li nga xamee ni moom la nit ñi àttan hmm. Euh, surtout pour ay produits yu sensibles yu mel ni ceeb wala wala mburu mhm. euh, bon pour départager séeréer yi ak tukulóor yi moom yaakaar naa ni tukulóor yi ñoo gën bëgg mburu mu bees ah, séeréer yi ñoo gën a bëgg mburu mburu mburu ñuy teg ci kaw di ko yóbbu ci kii bi loolu mbokk yi ñoom mburu mën naa am une semaine ñu continuer di ko lekk et il paraît que boobu moo ëpp wér-gu-yaram sax mburu bu yàgg waaw man moom mais man moom tukulóor yi laa laay faral voilà colonel yow mburu mi intéressé wu la Euh, <coughs> dina m'intéresser euh. parce que damay xool rek fi nga xam ne fa la sama jigéen bi waxee foofu nga wax xool euh, population mm-hmm. population li nga xam ne moo ñu war a boo ñu war a yitteel mooy naka wëre mm-hmm. wér gu yàgg mm-hmm. mburu mi ab not la not dëgg la parce que bàyyi la nekkoon jël loo xam ne lii lépp fa la jóge ñoom le marché international haussé les meuniers mën ko jënd moyen et puis di ko vendre moins mm-hmm. donc dañ on est dépendant du marché international et les meuniers vont augmenter donc ça pose des problèmes mm-hmm. te ñun léegi nag mënatuñoo reculer lu tax mënatuñoo reculer fekkee ne une population yow doo xool un développement durable à long terme nga poji say say say facteurs si bu ñu bàyyee bu ñu bàyyee dugub. bu ñu bàyyee mboq dootoo amati li nga bëgg. Mm-hmm. ah waa si seen yi dootuñu am seen fonde. Mm-hmm. dootuñu amati laax ñëpp xale ne acca mburu mburu mburu papa muy mama ñoo bokk sax affaire affaire fonde si léegi. Mm-hmm. ñàkk nga valeur. te ñëpp xam na ne mu leer mburu dégaañ. li mu am si glycémie. boo demee diététicien bi ne la mburu bi defal tuuti te malheureusement mburu amul mburu bi dafa amul benn valeur lu tax nutritive parce que li mu li mu am dañ dindi tous les éléments hmm. farine blanche la boo xam ne bi dañ ko laver tous ces éléments li gën a ba gën rek mooy li nga xam ne mooy li muy am hmm. te loolu dëgg yàlla la nga say am si santé day yées bu baax a baax te day hmm. affecter la population jërëjëf euh, colonel lii suñu papa ji di wax je pense que am na sax ku koy dëggal fii moom mi ngi naan euh, nañ bàyyi mburu bi dellu si cere bi. koo wax dëgg. waaw je sais pas nag euh, loolu naka la ko tukkuleer yi nar a dundee ak séeréer yi. mais bon cere moom euh, mooy dëgg. voilà am na aussi kuy wax ni fii. Euh, si farine augmente, si farine, si farine augmente, le pain doit augmenter, l'État doit diminuer un peu. Si nous regardons la réaction que ci WhatsApp, donc ki dafay laajte rek pourquoi le prix coûte moins cher en Côte d'Ivoire wala marché yi blé bi du benn Euh, je sais pas nag. kan moo nekk mieux placé pour répondre à cette question. c'est ça la c'est ça la différence. je crois non non non. on ne cultive euh, pas on ne produit pas de blé en Europe. non c'est le nord c'est européen. le Maghreb le Maghreb. Amérique latine. dama bëggoon ci question bi euh, colonel wax sànq rek xam nga ñun ITA mu ngi fi. l'ITA mhm. existe depuis longtemps. Mhm. institut de technologie alimentaire. Mhm. ITA développe développé na fi. à des des produits yoo xam ne à base. de céréales locales yoo xam ne tey mën na remplacer moo ëpp valeur nutritive mburu bi moo moo ëpp sax leneen loo xam ne te te war loolu nag nu ñuy def ba vulgariser ko parce que ba léegi foofu la yem ça diir soo xoolee tey résultat recherche boobu ñu génnee ci wàll wi mais tey nu ñuy def ba mu dem ba entrer dans les habitudes de consommation quotidienne des sénégalais ba tey du ñu nekk otage par exemple meunier yi nga mm. xam ne dañuy dem jëli seen seen seen seen seen euh, farine de de blé comme ni mu wax bitim réew ñëw di ñu ko jaay njëkk loo xam ne day metti dama bëgg rek question ITA boobu c'est un problème de coût tout simplement le, le blé coûte moins cher en termes produit fini pour le meunier que s'il doit aller prendre tu n'as pas de disponibilité de quantité suffisante ci céréales locales yi aujourd'hui au niveau du Sénégal. kon foofu la ñuy yem ci lu jëm ci wàllu actualité euh, tey jii euh, ñu soobu nag ci Ali Kalaj ji mooy euh, émission thème bi ñu leen tànnal tey ñu demaleen leen foofee ca ñaay bi. waaye nag prétexte bi mooy wax ji nga xam ne moom la jiitu réew mi président Macky Sall wax le 3 avril bi ñu koy investir bi muy waat ci kanamu askan bi amay kaddu yu mu yëkki. jëmale ko nag ci naka la fas yéene aar li nga xam ne mooy li ñuy woowee les zones humides ñu teew lu président Macky Sall. La protection de notre environnement reste un défi majeur de notre temps. J'ai initié le plan Sénégal émergent PSE. aar suñu alam gi. war nañu yitteel ci jamono yi ñu toll nii taxawal na PSE plan Sénégal émergent vert ngir jagleel ko ci sàmm lépp lu jëm ci suñu wàllu écosystème boole ci itam njëmbatum garab fépp ci réew mi waaye nag dina xeex lépp lu jëm ci wàllu spéculation foncière ak lii di yàqum àll bi jëm ci ngorum garab dinaa xeex te duma ci noppalu lii di spéculation foncière rawatina nag ci gox yi nga xamante ni mbay dafa fekk baax te suuf sa nangu mbay mën naa ci lim zone des Niayes gox boobule lu wuute waxuma rekk rafetaayam waaye dafa bokk ci liy dundal askan bi boole ci itam di dundal ñi nga xam ni ñoom ñooy exploiter zone yooyu li ma bëgg wax rekk mooy duma bàyyi kenn ci bëgge muy dajale suuf walla muy yàq gox yi nga xamante ni dañoo amal njëriñ walla sax ñoom ñooy dundal askan wi ci wàllu mbay dinaa ci xar sama tànk tubéy dinaa aar zone yi nga xamante ni mbay dafa fekk baax te suuf sa nangu. à la mu ngoog muy euh, kàddu yi président Macky Sall euh, mu yëkkati woon ko le 3 avril euh, bi muy waat ci kanam bi demaloon nañ leen nag foofee ca Mboro rawatina ca gox boobu ñuy woowee gàdd di benn dëkk boo xam ne mi ngi foofee ca Mboro foofee nag baykat yi am nañu ay jafe-jafe jafe-jafe yu jëm ci wàllu pollution lépp lu ñu bay rekk Euh, dafay naax saay ñu dem teewlu ji ñi nga xam ne ñoo di baykat yi ñoom ñoo ko nettalil seen gémmiñu bopp. duñ fi bay mu yàqu jur guñ fi yor moo dee nit ñi wéruñu koo fi gis rek ma ngay demaale kenn wérul ndax lépp essence moom la ko fii daal jafe-jafe rek yu wax dëgg yàlla moom lan fi jànkonteel moom lañ fi dund ñun waa Gàdd mënuñoo liggéey ba am len mënuñoo def len ndax ICS sonal na lu torop jafe-jafe yi kay ñun fi leen ko fekk ñun dañoo sëy si fekk fi jafe-jafe yi at yi moom wax dëgg yàlla bari ndax ICS ba mu fi ñëwee ba tey lan commencé am suñuy jafe-jafe wax dëgg yàlla ba mu fi ñëwee ba tey ñu ngi ci jafe-jafe yi wàññeekuwul benn xanaa gën di yokku rek fi ne sax dafa gën a métti moom ndaxte fi ne nii lu fi bay bu amee ñaari fan commencé lakk yàqu jur goo fi bu kuma bu ñëwee ba rafet balaa am ñaari weer yàqu ñax mi baaxul dundi bi baaxul lépp c'est ça ndox meet baaxul gis nga ko ni fan yëpp sax far benn robinet bi ubbiwul gis nga ko amuñu lu naa xawlal ndox mi ni mel bu doon ndox boo ci defee bu doon boo jël nga def si ndox ñaari fan lay am bu ko ñetteel gis nga ni ni kii bi ni verte nii bu doon yi noonu lay verte lool moo la xamal ni la ndox mi baaxul yenn saa yi ndox mi day ñuul kuk konk cooy li muy indaale sax kenn lu ko xam ay salte yu ban lay indi waa usine ñoom duñ ci naan duñ ci def leen ñun nag léegi ñun ñoo koy naan di ko utiliser suñu xale yi seen biir yi daw ñuy feebar dara baaxu ci suuf si moom jotiwuñ ci ñaay bi gis nga ko ni li ñuy roose ni xam nga ne lii di liggéey sax jigéen ma laa góor waaye ñàkk pexe rek amuñu fu ñu jëm ndaxte suñu xele yaa ngi ni kenn ci usine xam nga ni lii buñ leen góor a ko tiim di ko lii xam nga jigéen bu ñëwoon di ko roose kaa liggéey waaye xam nga ni amuñu fu ñu jëm lii xam nga ni du toolu roose ci góor ci magam jëmu yor këram liggéeyam jafe-jafe suuf moom am nañ ko jafe-jafe liggéey am nañ ko waa usine rek ñoo la ko xañ waa usine ndax ñoo ko gas ba xaaj bi jeex na gas nañ lépp ba mu jeex lu ñu fi wàcce la ngi nii lii nga bëgg cee bay bëgg cee yor sa sa sa njaboot xam nga ni loolu doxul suuf si ñoom waa usine ñoo ko gas ba mu jeex te jëlewul nu fi war nu fee jële te jëlewul nu fi war ko nekk du ñu xëpp seen usine bii kenn wérul mu ngoog euh, ñoo ko déggandoo euh, muy jafe-jafe yoo xam ni euh, béykat yi rawatina jigéen yi nga xam ne ñooy dund ci boor boobee di Mboro mbooro nag ñu yàgg ko xam ci grenier agricole en tout cas ci lu jëm ci wàllu fruit ak légumes waaye mu mel ni loole mi ngi ci mi ngi ci sunu ginnaaw loolu yëpp nag dara warula ko lu dul euh, ñàkk jote ci suuf ak itam euh, jafe-jafe yi nga xam ne euh, usine boobee wala industrie chimique du Sénégal mi ngi koy def foofe ca mbooro dañuy dooree ak colonel zone humide moom mooy lan zone humide su ma jëlee définition bu la convention Ramsar dane day nekk lépp loo xam ne lii ndox la mbaa palaasu ndox mbaa ndox dafay nekk un certain temps mbaa ndox dafay daw ndox mu nekk fa lu yàgg mbaa mu nekk as tuut mu mu nekk xorom mbaa mu nekk saf sa tuuti mbaa mu ba mu neex dañ si boole nag si benn partie bu euh, géej fekkente marée basse la profondeur dépassé six mètres dane c'est l'ensemble des étendues d'eau de marais de tourbières et de fagnes d'eau naturelle ou artificielle elle est stagnante ou permanente elle est courante ou permanente, elle est douce, salée ou saumâtre, y compris une partie de la côte quand en marée basse, la profondeur ne dépasse pas 6 mètres. Ça, c'est la, la définition donc de Ramsar mhm. et le Sénégal a adhéré à la convention de Ramsar en 1977 et nous avons des sites qui sont des sites de Ramsar. bu ma déggee bu baax ni nga tekkee zone humide kon gox yu bëri ñuy fi nekk. tey dëkk fa zone humide la. <laughs> gox yu bari zone humide la. et am na benn loi aussi bu nekk les zones humides sont non aedificandi c' est des zones te nit ñi ci ay zone humide rek lañu la ñu dëkk. waaw boo ko xoolee ci ci Dakar da ngay gis ne île du Cap-Vert ci boppam ak ni mu bindoo configuration ak paysage yi nga xamee ni moom la moom moo fi nekk da euh, nga mën nga considérer Dakar yëpp sax comme zone humide euh, ñu gis ne euh, <coughs> maanaam comme d'habitude rek Sénégal bëri na ay convention yu muy signé mais euh, à la fois contrainte yi nga xamee ni moom la ñu am contrainte objective la parfois aussi densité yi migration bi am Dakar ak euh, besoin habitat yi ak aussi manque de euh, ligne directrice en termes d'aménagement du territoire loolu buñ ko buñ ko boolee moom moo ñu indil jafe-jafe yu bari mhm. yu ñu am tey euh, ndax bari na zone humide duñ wax ak ay zone yoo xamee ni sax neneen lañ ko définir mu doon ay zone non aedificandi mhm. yoo xamee ni dëkkee nañ ko ba fàttee sax ni fii zone non aedificandi la woon mm-hmm. te euh, li nga xamee ni moom lay jur mooy contrainte yi nga xamee ni nii moom la ñu euh, moom la ñu euh, maanaam gañewul suffisamment contrainte yooyu day dellusi maanaam par exemple boo gisee zone ndox nga dëkk ko mm-hmm. sëkk ko ba ba dëkk ci lu yàgg période sécheresse wala période taw yi wàññeeku bis bu taw dellusee inondation ñëw li ñuy wax ndox bàyyi yoonam ñu door a fàttaliku ne foofu kat zone non aedificandi di la woon mhm. donc problème bi ñu am mooy d'abord ay problème objectif la comme ni ma ko waxee dakaar dafa tuuti mhm. euh, mais euh, problème mu organisation yaakaar naa ni mooy suñu principal problème mu sous-développement maanaam boo xoolee ni nga xam ne ni noonu la ñu dëkkee dakaar ak ni nga xam ne ni noonu la ñu continuer dëkkee bu bari ci euh, Sénégal. boo demee Kaolack noonu la boo demee nga xamee ni day am ay contraintes environnementales ba pare. tout ñu ñëw nag ni ñuy dëkkee euh, ak manque d'organisation bi euh, ak manque de moyens yi <laughs> ak yeneen yoo xam ne dinañ ci dellu ci kanam. Mhm. yooyu yëpp moom mooy jur li nga xam nii moom la ñu gis maanaam mooy foo dem ci suñu dëkk yi day day ànd ak salte day ànd ak li ñu doon wax sànq ci Euh, Saint-Louis ci euh, université bi nga xamee ni lu ci bari dañ koy dëkke te du ñu def système primaire d'assainissement day ñëw rek sëkk dëkk gas ay fosse mhm. voilà léegi bu ñu bu bu problème mu pour pour def léegi ay système d'assainissement day jafe donc mm-hmm. contrainte yooyu daal euh, bari na yu ci yu ci laxasu mm-hmm. euh, man en benn bi nga xamee ni nii jàpp naa ni bu bu ci am solo la te mi ngi lié à la gouvernance xëy na dinañ génn dellu ci yeneen yeneen points yi mooy yaakaar naa ñun ñëpp war nañoo seetlu loolu bàyyi ci xel mm-hmm. suñu gouvernement yi dañuy am benn problème muy problème mu aménagement du territoire ak urbanisation boo xoolee gouvernement bi am na au moins dix ba douze service yoo xamee ni ku ci nekk benn pàcc nga ci yor ci solution yi nga xamee ni moom la ñu war a teg ak politique yi nga xamee ni moom la état bi war a tëral. Mm-hmm. te structure yooyu seen lëkkaloo ak seen waxtaan dafa des. boo jëlee ministère ministre de l' intérieur am na lu mu yor ci mbiru protection civile euh, yenn intervention yi. yenn inondation yi da ngay dégg ñu ne ministère de l'intérieur moo ko yor euh, ministère de l'aménagement du territoire tey jii nii bi ma xoolee service yi nga xamee ni noonu lañ ko redistribuer ci gouvernement même bu bees bi nga gis ne équité territoriale développement territorial ak aménagement du territoire bokkuñu fu ñu nekk donc yu incohérence yu mel noonu moom mooy suñu vrai problème donc problème gouvernance la avant tout mm Euh, zone des Niayes mu nekk euh, zone bi nga xam ne mën na dundal Sénégal ñun li ñu am ci mbay doyul euh, li ñu yàlla jagleel ci suuf itam te ñu mën caa bay am na solo lool waaye ñu nar ko sàggane ba mu yàqu wala mu naax saay eleen loolee lu sa sa sa gis-gis. bon man damay rafetlu d'abord le fait que président de la République ñëw tey def ko une priorité. Mm-hmm. si si déclaration. Mm-hmm. mais c'est pas la première fois. en 2014 avec euh, Pape Abdoulaye Seck def nañ ci plusieurs conseil de ministre mhm. ma fàttali su benn bu 20 janvier beneen bu 20 juillet amoon na beneen encore toujours dañ ko consacré woon si zone si zone des Niayes man nag zone des Niayes bi dafa j'ai un intérêt personnel. Mhm. ci loolu. Mhm. parce que dama dama siégé pendant de 2008 à 2013 au conseil mondial pour la conservation de la nature j'étais dans le conseil d'administration. euh, je représentais l'Afrique en même temps pour les questions de genre. Mhm. Euh, donc dafa taxoon ma gën a gën a xuus ci problème boobu donte avant parce que da euh, institut des sciences de l'environnement bu Dakar laa lañ génne. Mhm. te boobu dañu amoon moyen yi ak Belgique dañ daan def le tour de l'ensemble des sites. comme li mu wax les zones non aedificantes yi xam ni fii waroo fi tabax. Mhm. fii waroo fi def lii fii waroo fi def lale. Euh, par exemple Médina Gounass bi tey mënoon nañ ko bàyyi mu nekk un lac. parce que la nappe phréatique est à zéro mètre cinquante. Hmm. sécheresse bi moo tax bu taw dawee tuuti mu yéegaat léegi asséché nañ ko de toute façon defaraat nañ ko. Hmm. mais am na zone yoo xam ne tey mënoon nañ ko dugal ci suñu système d' aménagement ba nekk un model écologique très intégré. nga xam ne nit ñi mën nañ fay dem di fa féexlu dëkk yëpp a ngay seet ndox bu ma gisee Espagne amuñu ndox seen benn rivière bu ndaw boobu ba fa train bu war a jaar dañ ko jéggi sa kaw pour wane ne ñoom am nañu yoonu ndox ñun ñu jàpp suñu yoonu ndox yi rek di sëkk mm-hmm. mais ñaay bi c'est c'est de Dakar à Saint-Louis dafa romb Thiès mm-hmm. romb euh, Louga mm-hmm. dem ba Saint-Louis mooy littoral boobu yëpp Euh, évidemment c'est dans les années 70 le problème bu ñëw mën nañ dellu plus loin même période coloniale bi mënoon nañ dellu su ba xaw gis bi toit bi fase yéene toog fi naka lañ def ba occuper littoral bi yàqati littoral bi aussi mais sécheresse su sos année 70 moo ko gënoon a yàq. Mm-hmm. ñu am ñu ñu si jàppale canadiens yi liggéey ci lu baax mooy bande yow moom dana ma ko gën a xam. parce que il est là-dedans. Mm-hmm. toute la bande des Filao. Mm-hmm. ñu liggéey ko ba ñu gagné woon sax un peu sur la mer parce que ñun en 99 dañu def benn recherche avec euh, l'ACDI. sur Sourley Niayes ci zone boobu. ba ñu gagné woon si ba taxoon sax jigéen ñi amoon suuf ci yoon si ay zone cepp ak yooyu. parce que xam nga boobu ku ku ñàkk rek yaa moom parce que kenn moomu ko woon. ça avait permis à des femmes dans cette localité d' avoir accès à la terre. parce que kenn moomu ko woon. du woon parce que dañu gagné woon bande tax na ñu un peu sur l' de la mer. mais liggéey boobu ñu def yooyu yëpp liggéey boobu ñu investir. nga xëy suba rek gis ñu daggat ko. Mhm. parce que bi li am géejawaay su fekkee ni comprendre nga lan moo juróon loolu ak fu mu jógee ak yan investissement moo ko fa may ñu xëy suba rek des acteurs politique qui n'ont aucune conscience historique de cet espace là jël suba yàq ko yàq ko yaxeet yow bu fekkee ni tu as une fibre environnementaliste sa xol dafay metti te dafay metti ci kaw mhm. ya yamunu rek la économique parce que kii wax na dafa waroon dundal Sénégal mais tey ñuy ñëw ba li ñu waroon dundalee ni ñi du ko mën def. Mm. mais en même temps euh, du point de vue de la santé. Mm-hmm. parce que point de vue de la santé bi. Mm-hmm. Ah, ça pose problème mm-hmm. ici. du point de vue de la santé. Euh, faamu mboore yi wax nañ ko. c'est-à-dire destruction bi ñu am si nappe phréatique bi. Euh, am na benn Adam sa xaw ma lan la tuddee defoon na benn étude Tidjani wane ni y a 600000 tonnes de pesticides. ak mille litres de pesticide boo xam ne moo nekk ci légumes yi ñu koy lekk mu ñuy indil diabète mu ñuy indil cancer mu ñuy indil leneen donc euh, l'absence de politique cohérente ak de maitrise de ce secteur la impact bi muy am ci santé population yi li mu yàq ëllëg koom-koom si si si biir nit ñi mm-hmm. mais en même temps ñëw rek de manière sauvage mm-hmm. des acteurs politiques yoo xam ni euh, xëy suba rek tey bëgg am dañu féexlu booru géej mm. tax ñu dem yàq loo xam ne pendant trente ans des partenaires nous ont aidés ñu defar ko ba àgg foofu ñu àgg mën a stabiliser zone ba ñu xëy suba yàq ko loolu ku xam histoire boobu mm-hmm. dana metti sa xol maintenant nag nga xool population ci seen bopp tey ñu leen di yàqale dañu nar xëy ñoom toxu dem feneen du ñu am leneen lu ñu liggéeyee parce que bu ñu jëlee seen suuf yi nga xam ni parce que li nappe phréatique bi dem ndox amatu fa problème forage dina si ñëw mm-hmm. moo tax baykat yi mënatuñu sax bay boobu ñu nekkoon les acteurs politiques devraient aider la zone des Niayes à reprendre sa fonction historique sa fonction économique te te ma daanee ci benn moo di santé bi dëkk yëpp dañuy am des zones de respiration parce que gàncax dafa bokk ci li nga xam ni dafay atténuer no problèmes de santé boo demee Paris am nañ seen bois de Boulogne ak bois de mm-hmm. Vincennes ak yu ma xamul mais ñun dañuy jàpp di gor rek di gor di gor ba xale yëpp di am asthme léegi Sénégal on sait que c'est la polition mag ñuy feebar crise mm-hmm. cardiaque malaise li ñu ci mën a wax mm-hmm. bëri na moo tax ñaay boobu il faut ñu delloo suwaat ko ba mu reprendre sa fonction traditionnelle moo tax président la République Euh, nit ñi waruñu ko bàyyi je crois que population yi war nañ ko jël ci waxam jooju mu wax topp ko ba mu àgg euh, sa cappaandaw ba bu ko hmm. defee njëriñu Sénégal moo ciy nekk hmm. déclaration wu président la République Macky Sall 3 euh, hmm. avril ne moom dina jël matukaay yi war dina lutter sans merci ci lu jëm ci wàllu spéculation foncière ku nekk xam na ni jafe-jafe la jamono ji comme ni ko Fatou waxee Euh, ci zone des Niayes parce que comme moo ñu intéressé tey mooy euh, li ñuy waxtaanee. leneen hmm. yow jàpp nga ni loolu lu mën a nekk la et d'abord est-ce que am nga ngëm-ngëm ni euh, ci mandat bi loolee dina doon xeex bu antu bon maa ngi comme Fatou rafetlu le fait que ñu adressé pro problématique boobu parce que nekk na loo xam ne buñ ko ci taxawul buñ ci jógul 60 pour cent de la production maraîchère bi nga xam ne. mooy dundal waa Sénégal mais lépp lu jëm ci légume muy génnee ci zone des Niayes zone des Niayes mën naa ne mooy sàqu sàqu Sénégal ci wàllu légume ci wàllu légume horticulture kon loolu bu ñu ko seetaanee ba mu yàqu xam naa ne dina nekk loo xam ne duñ ko mën a dabooti mukk kon war nañ koo taxaw am volonté politique bu mu yem ci déclaration parce que c'est pas la première fois te initiative yi bëri na ci zone des Niayes comme ni nga wax. Hmm. Fatou wax ko colonel wax ko. Hmm. Euh, kii wax ko. Euh, Cheikh docteur Cheikh wax ko mais fan lay mujjee faatu li mu wax ci intervention Canada man j'étais dans le dans le programme dafay Canada de intervenir <coughs> band de filao bi soo ko jëlee Dakar ba Saint-Louis hmm. mais pendant des décennies partenaire au développement yi taxaw ci. pour arrêter avancer dunes yi pour ñu gagner ay cuvettes fon euh, euh, ay cuvettes euh, maraîchères mais aussi pour ñu aar ay dëkk ndax su du loolu dëkk yi na ngelaw liy ñëw jóge ci géej gi mooy ñëw jël dunes yi dañ leen di sëq donc loolu yëpp bu ñu ko liggéeyee ba teg ko mais ils ont ils sont allés plus loin dem nañ ba defal un plan d'aménagement de la zone des Niayes man j'étais dans les équipes yi nga xam ne ñoo doon dans le cadre de projets comme le le le ak yeneen pour dem def un plan d'aménagement pour ñu xool filaawu yi ñu jëkkoon a jëmbat sax nu ñuy def ba dindi leen xool nuñ koy régénérer pour pérenniser loolu ñu def mais ci jamono jooju euh, MLK xam nga lu xew état du Sénégal dafa jël 445 kilomètres carrés si si si si si si ñaay bi joxe ko en concession lii ñu jox ko ICS lii ñu joxe ko pour zircon bi si loo xam ne jëmbat nañ fa ay filao depuis des décennies et des décennies ñu bëgg ko aménager pour viabiliser loolu pour ñu mën di ci dunde ñu jël ko joxe ko concession te yëgoowuñu ci sax lu ci gën a bëri mm-hmm. ak population yi nga xam ne ñoo dëkk ci gox yi ñooy subir conséquence su euh, ICS bii ñu wax léegi léegi nii euh, ak seetuñu waxtaan ak acteurs yi ba xam fan lay fan lay lan lay jural Sénégal donc loolu moo tax ma ne volonté politique yàgg nañ wax ci mbir mi na volonté politique bu mat sëkk la laaj. Mhm. pour ñu aar lii nga xam ne buñ ko defutee d'abord waxuma yàq-yàq gi muy indi ci dundinu askan wi. Faatu wax na ko ci wër gu yaram. Mm. jigéen ñi wax nañ ko léegi te amul sax lu bëri lu muy jur ci ay xëy su ngeen demee ci rapport yi it iti ITIE bi mais euh, euh, ind euh, ña fa nekk di exploité foofu indi fa caxat-caxatee foofa mais ci mooy ñi gën a néewle ci li ñuy dugal ci biir dundinu askan woowu du ci wàllu xëyub ay xale ci ci xëy mhm. ak si si si si joxe RSE boo xam ne di ñoom dinañ ko yëg dinañ ko gis. très dañuy dem donc mën nañ ci dem ba ci kanam mais mm-hmm. dama ne. Mm-hmm. te euh, euh, problème bu am solo la boo xam ne. Mm-hmm. dañ ko war a régler dem ci nag bañ ci dellu ginnaaw xool li ñuy réhabilité muy ICS est que sax mu ngi réhabilité loolu il faut ñu dem xool ko moo tax thème bi dafa yaatu il faut ñu dem xoolaat ko mais j'aime xam naa ne GCO moom. mu ngi doon réhabilité mais suñu nangoo sa tool mhm. gas ko ba dindi sur surcom bi bu buñ ko réhabilité kan lañ ko nu muy mujjee réhabilitation moom amu ci ah dañuy as euh, as bala may ñëw ci yow dañuy dem euh, delluwaat foofee ca Mboro <laughs> euh, dem seeti kii di Aïda Cissé moom nekk na conseil municipal poofe bokk na itam ci kuréelu jigéen ci wàllu développement yu bëri mm. moom mu ngi amal liggéey bu amam solo ci li nga xam ne moo jëm ci xeex li nga xam ne moo jëm ci wàllu suuf ak mbay mi nees def ba suqali ko ñu dem teew teewlu ko te ñëwaat. defe naa ne comme yéen da ngeen dem taal sunu dem ba àgg xool tey du loo nga xamante ni lu lu neex lu nit mun a wax dara la ndax lu ngeen teg seen bët la kon am na muy jafe-jafe nag metti vraiment ndax bu ngeen xoolee tey li nga xam mooy yàqu-yàqu yi ci tool yi wax dëgg yàlla ku dem ba xool ko rek war ngaa yërëm ñi nga xam ñoo fa nekk surtout bu fekkente ni ci xale euh, surtout jeunes yi nga xamante ni amuñu fa emploi te yaakaaroon lu dul tool yi ak ñi nga xamante ay euh, père de famille lañu yor seen njaboot tamit te yaakaaruñu tool yi kon defe naa ni foofu moom vraiment xam naa ni metti metti la boo nga xamante ni ñun ñëpp xam ne ni lu metti la yàqu-yàqu yi moom doy na waar saafara bi kay la xool saafara bi kay ñun ñëpp koy bokk defandoo média gouvernement Sénégal population yi ak ñëpp ñi nga xamante ni tey rek tey ñu ngi nekk fii tey ci biir Sénégal par de responsable part de responsabilité am nañ ko ci ndax defe naa ne loolu du lu nga xam ne dañoo xëy mën a xëy xëy daal di koy dindi typiquement kon dañ ciy waxtaan dañ ciy def ay ndaje da de les concernés ñëpp ñi nga xam ne war nañ cee indi seen kàddu ñëpp ñi nga xam ne war nañ ci indi seen xalaat dañ leen di woo boole leen ci ñu wax pour solution mën a génn waaye mel man Aïda mënuma koo génne maanaam waa population Gadda Guessé mënuñu koo génne population Daaru Xudoos kese mënuñu ko gën te effectivement da gàddu ngomeen sax mu ngi bokk ci commune Tay ba Taïba Ndiaye mais nag comme commune Taïba Ndiaye commune Daaru commune ak commune Mewane organisation ñu boole ñu tënku ci benn organisation pour dimbali dimbalante pour jàppalante pour mën a jëm ci kanam kon ñun ñëpp dañuy ñëw toog maire dañuy toog même le sous-préfet ñëw toog ñun ñëpp ñu ñëw toog waxtaan ci ñu xool yan naka la ñuy def ak fan la ñuy teg suñu tànk ba mën leen a jàppale yooyu nga xamante ni moom moo fa nekk di fi di fa am mbir la mu nga xam ne mbir mu ñuy waxtaane la te it UGS wax dëgg ñu ngi def loolu tamit waaye xam nga uh, organisation bu toll UGS tam sampul rek maanaam pour loolu di am rek itam am na lu nga xamante ne lu baax la lu mu fi def waa am na yu ay quelque yu baax yu mu fi def ndaxte population bi léegi-léegi bu ñu intervenir ci dëkk ba amul courant day taal machine am dem gàmmu yi dañuy dem intervenir jigéen ñi dañ leen di may ay billet léegi-léegi itam ñu jàppale nit ñi école affaire école jàppale nit ci affaire ndox ak yooyu embouchement bi tamit tuuti na trop par rapport ak ni ñu ni ñu nekk ci ci localité bi dafa tuuti mais quand même lu mu ak nu mënti demet jël nañ fi ay jeunes embauché leen. mu ngoog mu doonoon kii di Adja Aïda Cissé euh, nekkoon conseil municipal bokk itam ci kuréelu jigéen yi nga xam ne ñu ngi foofee ca Daaru Xuddoos euh, nekk commune bi nga xam ne mi ngi bokk ci Mboro euh, Astou bu fekkente ni y a des réactions au niveau des internautes. Euh, ñu jox la kàddu gi waaw dinañu ñëwaat ci ci yow euh, ci daaneel ci li mu daanelee euh, mi ngi doon wax ci RSE responsabilité mm. sociétale d'entreprise waaye li mu li mu wax dafa mel ni demeewul noonu de ay gàmmook ay <laughs> ndax loolu mën na amal njëriñ askan wi par rapport ak lii eh, lii di li yàq-yàqu bi fu mu toll ah man daal man pour reprendre quelle que soit implanté dans une zone agricole mm -hmm. une zone spéciale avec ce qu'elle a dit euh, un partenariat intelligent qui avait compris que si on ne stabilise pas les dunes par un périmètre de reboisement qui a démarré en 36 tout ça allait partir Donc c'était justement dans le cadre de maintenir la production marché vers, vers Dakar. Mais malheureusement, cette société arrive, ou deux autres, mais non seulement il n'y a pas un accompagnement véritable pour les populations, parce que les terres sont restées devenues stériles. Les aménagements d'accompagnement pour que les populations puissent produire, zéro. Vous voyez que des montagnes. cultiver dans une montagne pas possible mhm. et ça ça c'était même même je dis minimal n'est-ce pas quand une société s'installe pour accompagner les populations pour compenser l'impact et je trouve ça vraiment un peu un peu dommage mhm. et il faudra donc poursuivre justement cette euh, cette euh, cette cette parce que tant qu'il n'y a pas euh, cette orientation mhm. stratégique pour les populations il y a toujours des plaintes il y a toujours des impacts même très sévères mm. parce que aller donner euh, quelques sous pour aller couvrir des magal tout ça celui-là c'est pas ça on n'est pas tout le temps en magal mm-hmm. on a besoin d'emploi mm. on a besoin de production mm-hmm. et ça ça manque Astou beaucoup de réactions sur nos différentes plateformes ki si mel ni Ismaïla Ndiaye mi wax ni je suis actuellement à la CSS mais j'étais producteur et exportateur de légumes dans la zone des Niayes l'État nous a coupé l'eau en 2007 en 2007 voulant faire des habitations pour le sol de cette zone qui est très eh, c'est très difficile à construire il y a une roche blanche qui se dilate et fonde les bâtiments même les plus durs Mm-hmm. donc bu ñu xoolaatee ci réaction yi encore ki mi ngi wax ni tout le monde peut se souvenir des jardins de Diourbel décrits par euh, Davnez au temps coloniaux Venez à Diourbel pour voir comment le maraîchage a reculé dans ce terroir du fait de la contamination des terres par la première usine de la CIB. Voilà. kon du ICS rek. WhatsApp également gars yi ñu ngi réagir foofu ñu ngi réagir euh, ñoom aussi euh, donc euh, ñu défiler ti xool. Euh, kii mi ngi wax ne bonjour je suis du Niayes du même village que Fatou Sarr le problème du Niayes c'est le manque d'aide du gouvernement on vit mal on a besoin d'aide c'est-à-dire c'est-à-dire arrêter l'importation et forcer la population à manger des produits locaux comment peut-on développer un pays si on utilise ces produits donc mu nekk on ces produits voilà quelques rek <laughs> quelques rek ci réaction vraiment il y a des centaines et des centaines de messages mm. mais on s'efforce juste à lire quelques quelques-uns voilà très bien merci Astou. Mhm. Euh, Cheikh ci si seen euh, kuréel gi di ENDA am ngeen ay jéego yu solo yoo xam ni euh, def ngeen ko dimbali jigéen ñi ngi d'abord ñu jotee ci suuf. Mhm. ak bu ñu jotee ci suuf naka la ñu koy exploité waaye mu mel nii bu ngeen defaree wala bu ngeen ñëwee def loolu bu ngeen wanee ginnaaw rek. Euh, ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiital muy d'abord les les les dirigeants locaux. Mm-hmm. ñoom bayuñu seen ni euh, nga xam ne mooy seen waar ci euh, fexe ba séddaleem suuf si ak jëriñoo suuf si doon loo xam ne luy jëriñ askan bi waaw ci foofu dinaa xaw a sévère tuuti. Mm-hmm. man damay wax ne dafa am benn mafia Sénégal boo xam ni diggante ñi nga xamee ni ñoom ñooy impôt et domaine. Mm-hmm. collectivité locale ak ñi nga xamee ni yow dangay xëy ci 2STV di liggéey si ñoom ñu xëy dem sur le terrain pour xool suuf bu ñu mën a lekk ànd ak ñooñu ñenn ñi ay homme politique la doon aussi ñenn ñi dañuy am dañuy doon aussi ay euh, chef religieux mm-hmm. maanaam ñu am kàttan wala tur ci dëkk bi la ñuy doon gis nga mafia boobu tànk que dañul mm-hmm. président bu yeboo mu dem tëdd nelaw maanaam dafa dafa parce que li nga xamee ni nii moom la ñuy wax nii. Mhm. du lu bees. lu ñu xam la décision yii ñuy jël jël nañ ko fi plusieurs fois. man je pense yaa vingt ans cité cité comme temu suñu émission bi am na livre cité horticole en sursis la tudd Abdou Salam Fall Safiatou Touré ñoo ko def bëri na ay études yu wone ne zone bi c'est une zone menacée c'est menacée par la spéculation foncière menacés par l'érosion, menacés par les problèmes euh, environnementaux en général, euh, mais aussi menacés par la l'urbanisation et la mauvaise mauvaise gouvernance mhm. parce que su fekkee tey jii nii da nga jël euh, euh, da nga am zone écogéographique bu toll noonu nekk sur presque cent quatre-vingts ba deux cents kilomètres de long mu am le trente mètres de large mu am homogénéité hmm. éco-géographique yow li nga war a def mooy xool zone boobu ban vocation wala yan vocation nga nga leen di nga koy jox nga nga tëral say politique à court moyen et long terme hmm. pour zone boobu vocation yooyu zone bi bañ a yàqu te répondre ci vocation yooyu hmm. loolu ba léegi mosul am ni mu war a amee programme yi bari na PADEN passe dune ñun ñii suñu bopp yaa vingt ans defoon nañu benn programme tout programme d'aménagement concerté des ñaay ENDA ci boppam tëral ko ne nag il faut acteurs yi nga xam ni ñoo séq zone bi ñëpp toog ñu aménager zone bi de manière de manière concertée mais comme ni nga ko waxee maanaam da ngay da ñii dañuy gas ñii di suul ñii di suul donc loolu nag tant que tant jógu fi zone bu mel nii bari na yeneen zone Sénégal mais zone bi dafa particulière mm-hmm. parce que daf maanaam ni mu bindoo dend ak géej gi euh, daal di am yenn yenn euh, avantage yu bari en terme de sol en ba pare ba pare nekk aussi su la menace de la dégradation mm-hmm. par l'homme et aussi par par par euh, les la nature mm-hmm. moo tax ñu war ko jël de manière particulière man su su fekkoon man la dama koy jël def ko benn région boo xam ni région spéciale lay nekk boo xamee ni kenn du ko considérer mm. comme yeneen région yi nga xamee ni autorité locale bi day am morceau bi beneen autorité locale am waaw mu doon benn zone protégée de Dakar mm. comme patrimoine de Dakar à Saint-Louis mm. xoolal contradiction ñun dañu xeex a xeex xeex ci ci euh, euh, arène nationale bi ci digg waay c'est digg ñaay bi te dañ leen ko wax ni leen non fii munu fi nekk mm. c'est-à-dire fii fi nga xamee ni fa la euh, dune bi gën a faible sax fa lañ ko def booy génn ci arène bi di dugg ci ndox mi mm-hmm. te waxoon nañ leen ko te arène bi yàgg-yàgg day am problème mm-hmm. parce que jege ndox bi de toute manière échec la même mbër yi si boppam tudd nga ko comme tudd nga ko dañuy dem euh, foofee ca Technopole lu toll ci ñeenti ambassadeur euh, demoon nañu fa Euh, nemmeeku li nga xam ne moo xew foofee ca technopole ñu ànd ceeg Babacar També. bërëb bi di technopole mu ngi wéy di wane dayo bi mu am ci wàllum alam gi ay nit yu jóge fu nekk ngir amal ay visite ci bërëb bile ay picc itam di bàyyee ko bitim réew di fa ñëw lu ni mel nag di fitna rekk solo si nga xam ni bile bërëb daat ne koy am waaye nag ak anam bi nga xamante ne ni moom la ñuy cakat-cakate suufi zone des Niayes bile ñi nga xamante ne ni nag dañuy dox lépp lu jëm ci wàllum ak ak yelleefu nature bi le di ñaan rek ñu daal di koy sàmm. qui maintenant est un site protégé euh, protégé sur Ramsar et sur protégé par la législation. barab bii di technopole am na solo lool ci wàllum alam bi fii nag gis nañ nii fii mooy poumon vert bu Dakar euh, maanaam Dakar fii la nooyee lenn lu ma gis fi mooy tamit picc yu bëri dañuy ñëw ba fii ndaxte am na picc bi nga xamante ne day bàyyeekoo suñu dëkk bu ñu oowee pays ñëw fii ci Sénégal euh, picc boobu gis naa ko fii loolu may wane ni barab bi am na solo lool. pour être ici euh, euh, au Sénégal donc. que je viens vraiment visiter le le technopole et barab bi am na solo lool maa ngi rafetlu tamit tax waaye jiitu réew mi ndaxte gis nañ ni wax na engagement bi ngir ñu mën a aar bu baax a baax barab bi ci yeneen tabax yi loolu nag am na solo lool. parce que la protection de la faune la protection des habitats. bu yàggul dara rek njiitu réew bu Sénégal daal di wane bëgg-bëggam ngir aar euh, bërëb bile. mais la première fois ñu dégg ko mu wax affaire u set affaire environnement bay tudd aw donc loolu dañ ko wan wan nekk ñu tamit kontaan nañu si li mu wax dañu ko jéem a jàppale si tamit li tax mu jël loolu dañ ko jàppale si loolu mbir moomu moo tax ñoo ñu xool teg na na laaj ñun nañ ci liggéey si lool nañ préparer par exemple ay ay plan plan de gestion. mu nekk lu nga xamante ne ni nag ñi yëngu ci wàllu wile ñu ngi koy xaarandi. dañoo organiser visite bi pour ñëw xool oiseaux yi xoolaale dëkkuwaay bi waaw waaw jafe-jafe yi moom bari na lool maanaam boo xoolee am na ñu bari ñoo xam ne dañ fi daan ñëw am seen ay titre occupation ñëw di rambale di sëkk. di bëgg a di installer seen ay entreprise ñii di bëgg a installer seen yeneen ouvrage technopole nag ko bokk ci juróomi bërëb yi gën a humide yi nga xamante ne nii nag importance internationale la ñu am fii ci Sénégal ci tukkub nemmeeku bi nga xamante ne nii nag ambassadeur bu pays ba ak Grande-Bretagne daañu koy amal li nu mel nag di gën a dëgëral xeex bu nga xamante ne ni acteurs sénégalais yi ñu ngi koy amal ngir ñu sàmm bërëb bile di poumon vert bu capitale bu Sénégal bile. mu ngoog euh, ñoo ko déggandoo loo xam ne sunu njëriñ la mhm. sunu alal la mhm. sunu réew la mhm. ñeneen gën ñu ko fonk ba ñëw naan ñu lii na ngeen ko gën a téye loolu yéeme na de yéeme na trop <laughs> mais damay wax si tuuti li tax ñoom jóg mm. bi président waxee dafa bëgg jël ay matukaay depuis 2014 bi nga ko déggee dañ ko rafetlu ma jot naay message yu jóge bitim réew ne ah Sénégal fu nekk léegi dëgg yàlla yéen a ngi ci euh, dans le collimateur des partenaires. et on est parti def li mu bët ñoo ñoo daal ñoom dañu bëgg ñu préparer NCD ak Bird Life def tout pour ñu gis loolu lii lii lan mooy technopole bi ñemee wax naa leen lu toppik bool moo am importance xam nga technopole fii boo fekkee da nekk fu nekk ci kaw premier picc buy naaw technopole moo moo rek moo nekk boo xam ne bi dex la bu yaatu man yëpp seetu picc wàcc fii picc yi gis nii dañ leen wax ay ay kirikiri mais kirikiri dafa bari xeet am na yu bari ñoom fi la ñuy euh, fi la ñuy tojtale fi la ñuy euh, fi la ñuy euh, reproduire mm. mais yeneen ñi folie la man leen xamal leen ne nag yow ambassadeur euh, Pays-Bas picc mi xam ne sa picc national la ñoo koy barge ak noir limosa limosa fii lañ koy gis ak ay jaaroom ñu xam ban dëkk a jóge fan jóge na nga ñëw benn man naka yow ambassadeur euh, Grande-Bretagne am na benn picc bu ñuy wax balbuzard fii lañ ko fekk benn benn picc bu ñuy wax fusée danañ ba gis ka ñu ne xam ne c'est la deuxième année mu ñëw boole deux journées am na beneen picc bu ñuy wax sandaline kooku tamit gis nañ ko fa yuy xet yu bari bari bari donc wax na ne ñun sax ñun technopole lu tax ñooñu ñëw foofu dañ ne daal comme président wax na ñoom dañu xool naka lañu mën a jàppale ñi fay liggéey pour que loolu mën a aaru mooy benn mm. ñaar ñoom yaakaar nañu ne Euh, comme Dakar amuñu benn poumon amuñ benn foo xam fii lu la te dëgg yàlla gis nañu am na menaces yu bari naka lañ mën def jàppale pour que la gestion des parcs nationaux la gestion des forêts et également kii l'État et mhm. également des organisations locales comme NCD ñu def ba restaurer milieu bi ba ku ñëw kontaan. Mhm. parce que dafa bari ay fonctions yoo xam ne c'est extrêmement important. Mhm. xam nga ne fii ndox mi. du yëpp du ndoxu ndoxu euh, taw de kii une partie d'eau la c'est l'eau de la LONASE qui fait un lagunage là-bas boo gisee picc yu bari di fa ñëw ay sand yu ndaw yu picc ndaw yooyu parce que nga si nga lagunage boobu bu nee ba ko asséché day indi ay ay ay rab ay ay insectes yoo xam ne yi moo ci dund. dañu fay bari ay milliers. Mm. te boo demee euh, bitim réew ñooñu fa fañ jóge fañ jógee doo gisee deux ou trois nga gis. lu tax fii ñuy concentré à des centaines et des milliers. Hmm. y a quelque chose spécifique donc ñun loolu lañ bëgg jëm a xamal ne. bu fekkente ne nañ ay jumtukaay. Hmm. nañ ko mën a aar pour ñëpp sa jëriñoo. Hmm. cette fonction là. mais xam nga ne est-ce que fii xam nga ne am nay jën am nay waas te ñii liggéey foofu yëpp nekk jardinage yëpp wallaay loolu ñu aar ka moom mooy seen. loolu mooy seen mbégte mais loolu lépp nag dafa bari yoo xam ne mm-hmm. yi dañ koy def mm-hmm. te bii dafa nekk particulier c'est la seule zone une qui reste encore parce qu'il était connecté à la zone humide nest pas de Cambérène et Maris Maris c'est fini mm-hmm. c'est un c'est un cadubi nest pas d'insectes infestent que les moustiques pourquoi parce que c'est pas aménagé mm. Cambérène c'est complètement lagunage c'est perdu justement parce que bon voilà donc qui reste qui a conservé c'est ça qui reste et je pense que son appel sera entendu nous en reste un vers Gadaye là euh, hmm? euh, un vers Gadaye on a euh, un petit espace bu ñu dese bu ñu Gadaye quand tu vas vers Guédiawaye quoi après Odilo Ganas waaw am na benn filet filet bu des li li li colonel wax moi je pense que Cheikh Enda depuis les années 70 xeex nañu wax nañu ONG yi ñu ngi fi je crois qu'aujourd'hui il faut prendre au mot le président de la République mm-hmm. il faut qu'un groupe de pression se mette en place pour loolu parce que euh, je, je que ñi nga xam ne comprendre nañu quels sont les enjeux pour le futur mm-hmm. de de ce pays mm-hmm. ñooñu ñoo war jóg taxaw parce que pour man jot na nit ñi jóg taxaw pour aar loolu parce que les autres pays qu'est-ce qui se passe c'est un rapport de force parfois yoo xam ni te loolu euh, rapport de groupe de pression bu ñu ko fi créé woon à partir de cette problématique je crois que les soutiens internationaux vont être extrêmement nombreux absolument, absolument. et je crois qu'une institution comme l'UICN ñoom yàgg nañ ci liggéey ñi ngi fii am nañ le bureau à Dakar mais au niveau euh, de Gland à, à, à, en, en, en Suisse on pourra trouver des appuis parce que lii euh, li li ñuy wax ni zone u ICS li leen di jox mm-hmm. est-ce que en contrepartie jar na ko parce qu'on n'a pas évalué les coûts mhm. réellement par rapport ak ñoom li ñuy li ñuy toor bi ñuy indil mhm. parce que yow nga am patrimoine bu mel nii on n'est pas encore capable d'estimer de manière mhm. monétaire le le patrimoine écologique que nous avons te nga xool ni ëllëgam si biir lu lu mu lay jur ça c'est une zone touristique extraordinaire qu'il faut amener aujourd'hui donc moi je pense que jot na qu'un groupe de pression en place sur cette question puisque président moo ko waxoon nit ñi topp ko. Mm. ba yëf ba mën a nekk. Mm-hmm. pas parce que dañ ko bugg defal une pression. Mm-hmm. mais parce que les gens sont convaincus. Mm-hmm. que intérêt wu askan bi et c'est dans l'intérêt la l'intérêt national est mais ñi xam. ñi xam li mu jëriñ ñooñ ñoo mën jóg taxaw def ko. parce que les gens ne comprennent pas. pour ñoom gis nañ gàncax rek et puis bu ñu xoolee l'historique du Sénégal euh, depuis la. Euh, enfin depuis des des des années ou même des siècles ñu xool dégradation bi ni mu ni muy moo tax tey bëggoon naa. ñu wan nañu des images waxoon naa la ko des Niayes avant. Mm-hmm. ak des Niayes aujourd'hui mm-hmm. pour voir l'ampleur du dégât. bi nga xam ni nit ñi def nañ ko peut-être que suñu defaatee beneen émission mm-hmm. ce serait important que population yi gis que population yi xam et puis plus naka la meloon avant ñu xool processus de dégradation bi mais li mu ñu dara côté Euh, c'est c'est énorme parce que pour man est-ce que ICS jar na ko. il faut une prise de conscience aujourd'hui nit ñi xam njëriñ bi nga xam. waaw oh, mais c'est ça l'objet de lu ci ndaw la. en fait ICS. côté Mboro ak côté Darou la nekk. Mhm. problème bi muy posé effectivement laal na ñaay bi mais c'est un problème plus général. de, de par rapport zone. à l'exploitation de certaines mines mm et à la dégradation yi nga xam ne ni moom lay jur première étude euh, pédagogique bu ñu def ñun euh, quand on était étudiant c'était déjà ya trente a ans mhm. sur la zone de de Mboro Ndomor Diop mhm. Daaru Xuddoos population yi foofu mhm. ni ñu sonni comme ni ñu ko waxee sànq kenn mënu la ko wax foofu li muy li muy jur ñenn ñi dañu doon wax sax ñoom même tissu wala même jiitalukaay pour wax ko wax bu rafet buñ ko amee du yàgg ndax bu boo ko laalee mu xotteeku. ça c'est vrai seng boo xamee ni am nga ko man yàgguma fa lool waaye xet gi ma fekk yi foofu munuma foon yàgg. mi ngi noonu <laughs> seng boo ko tegee mm. ak nga teg ko Dakar du benn. Mm-hmm. boo ko fa tegee quelques mois. seng bi nëpp kon mu wone ni loolu ñi ñuy noyyi musiba naaru laay la te jëluñu ci conscience comme euh, je suis yeneen zone euh, yi nga xam ne ni ñu ngi fay def exploitation euh, minière yi yooyu yooyu problème bari na fa te li nga xam ne ni moom la ñu koy weccee jaru ko mooy mooy quelque e financement quelque quelque école seen doom yi liggéeyu walla wala buñ ca liggéeyee tam liggéey yu suufe lay doon eleen ñiy dagg suuf si di ko jaay ak ña cay dëkk yëpp ay ministre lañu ay personnalité yoo xam ne euh, yu yu yu haut placé lañu. kon ñi war xeex ñi war dimbali askan mbir ñu xeex loolu. ñoom ñoo mbir yi da du yomb waaw problème mu suuf si nekk na enjeu bu am solo. ci li ñuy wax ci ñaay bi. Mm. Euh, wax nañ sànq ne est-ce que duñ ko def benn zone boo xam ne spéciale ba nga xam ne nit sax xëj na règle yañ fay teg pour nit dagg fa walla am fa. bàyyi wala mu tabax fa dañuy gën a day nekk loo xam ne procédure yu gën a dëgër lay doon ko su doon feneen mhm. euh, mais man dama ci profito niñ ko waxee président moom moo wax mais man li ma bëgg mooy conclusion commission réforme foncière bi mhm. parce que mbir mi yëpp du mbir du dara contrôle suuf si la mhm. ñi ëpp doole comme ni ko Cheikh waxee sànq maa ngi leen di sargal moom it di ko sargal sànq mu may wax ne Euh, moom it mu ngi mu ngi may déglu mu ngi may suivre wax ma cofeel gu mu am ci ma mais ñun tamit li indaa di def ci wàll woowu ñu ngi koy topp ñu ngi koy xool te ñu ngi leen di sargal ci côté boobu bëgg naa réforme foncière bi conclusion yi ñu wax lan moo ci nekkoon su dee dafa am loo xam ne gënul mais nañ ko rectifier te ñu xoolaat loi yi parce que lépp li mu wax benn groupe bu tey suuf si la ñu am doole ñoo bëgg dëkk ci booru géej gi yëf yi romb na sax ñaay bi même littoral bi ñoo koy akimo bu yàggee fii dakaar gis ngeen kenn gisatul géej gi soo moytul ay cat rek ngay romb di gis géej mais c'est la même chose dans les Niayes il y a un enjeu foncier foncier boo xam ne fi ñuy war a dem di ko jël pour dundee ko soit jël nañ ko def ko ay dëkkuwaay ci ci pexe ñooñu Cheikh doon wax sànq wala def nañ ko concession état bi tayle na ko ay ay ay am na leneen sax lu ñu waxul mooy étranger yi nga xam ne jox nañu leen suuf si euh, bayuñu lu ñuy lekk mais euh, euh, li ñuy def mooy <laughs> agriculture industrielle. waaw loo xam ne nii du du non en fait je pense que dafa ñaay bi bëri na ay problématiques yoo xam ne tey dañu waroon a def. un état de li étude bu sérieuse état bi bu ñu yem ci wax rek sànni mais nañ ko xool bu baax a baax a baax ndax waxuma lool am na fa ay centrale <coughs> am na fa centrale à charbon bu ñu fa teg côté xonjoo mm-hmm. am na fa foo xam ne ICS dafay dem di fa sotti ay acidam muy dugg ci biir donc problème ya dafa bëri dafa jot comme président wax na ko ñu xool suuf soosu nuñ koy nu ñu koy nañu xool su amee zone yoo xam ne zone d'habitat la mhm. ñu xool nuñ koy gérer zone yoo xam ne zone de de culture la mhm. ñu xam comme fu fekkee comme fii technopole ñu jéem a xool ni nga xamee ne mais état bi ci boppam. muy ñëw violer si règle yi nga xam ne ñoo am déjà. Ah. arène nationale bi wax nañ ci arène nationale <coughs> parce que ñun. Cheikh wax na ko. suñu suñu suñu suñu euh, biñ nekkee assemblée. suñu législature xeex nañ ci ba sonn. Mm-hmm. arène national bi dafa nekk lu ëlëm nit ñi. Mm-hmm. parce que yow xeex ngaa nguur gi ba sonn pour ne ko bu mu ko fi def. Mm-hmm. na ko yóbbu sax pourquoi pas jam ñaajo wala feneen. mais mu ni mukk foofu la koy def. ndax partenaires yi nga xam ne ñoo financé. ñoo bëgg ñu def ko fa. mais man doo may lebal xaalis pour pour tabax sama kër <laughs> nga ni ma kër gi par force fii am ndox nga koy nga koy tabax surtout muy chinois te dama lay fay te li ci li ci yéem mooy foofu mooy buntu entrée internet fii ci Sénégal mm-hmm. bañ koy tabax kenn dafa xam lu ñu fa def mm-hmm. donc xam nga ñun tamit dañuy ñëw rek parce que dañuy financer rek. <laughs> merci Hélène. ñu def daal Astou oui. je pense que. il y a eu beaucoup de réactions entre temps. et euh, qui se pose d'éducation environnementale. Mm, mm, mm. comme euh, ce commentaire de Chérif Al Khalif que je partage avec vous mi ngi wax ne euh, il nous faut une rééducation environnementale à tous les maillons revoir les politiques agro-environnementales. ensemble réconcilier nos gestes et habitudes de l'environnement. Il ne faut pas oublier que l'environnement, c'est une affaire de luxe. Là où c'est pris en compte, le plus souvent les populations sont à l'aise par rapport. Par contre, la population sénégalaise a d'autres priorités que l'environnement. ah bon ah ouais. Ah, ça, donc euh, Souleymane Diba moom mi ngi wax ne merci à la 2STV. Hmm. une émission très importante je suis fils des Niayes je comprends parfaitement des problèmes nous sommes de cultivateurs des cultivateurs et actuellement l'espace est menacé par l'immobilier d'abord sur le long de la route des Niayes à Mboro avec les ICS plus la GCOSA à Diogo actuellement les terres cultivables sont très rares donc moom mi ngi wax ni rek cultivateur la et ils se sont menacés comme euh, c'est c'est hmm. peut-être ses confrères et camarades donc bu ñu xoolee WhatsApp également il y a des réactions kii euh, moom mi ngi wax ne j'apprécie waa donc je pense qu'on avait lu ce message là ñu wàcc tuuti ci suuf xool kii moom lu mu wax mi ngi ne Bonsoir. Savez-vous que dans les villages de Ngomen et Gade, il n'y a pas de moustiques à cause de la pollution? donc ku ci nekk daal <laughs> yaakaar naa ne lii la intéressé daal ngay wax. xam nga ñoom ñoo tudd gàddu ngomeen. mais gàddu ngomeen gàddu boo fa demee hmm. doomu mango yi doog a juddu. mais mango amatu fa. xoolal mango yi doom yi bu ñu juddoo. Hmm. ci saasi. Hmm. Euh, euh, mango bu ñuul kukk moo fa. ñuul kukk doom yi du mos a du mos viable du meññ quoi. donc ñun tamit dem nañ fa. gàddu ngomeen kon jigéen ñi nag ñoom tamit. mais su suy jur loolu. Mm-hmm. si garab yi. Eh. lan lay jur. ci nit nit ñi. Ah. effectivement am na ah. sax kuy joxe genre exemple bu xaw a similaire un peu. parce que mi ngi wax ni j'ai un champ de deux hectares dans la zone des Niayes je fais de l'arboriculture hmm. et du maraîchage généralement chaque année je faisais près de sept tonnes de pommes de terre à l'hectare mais cette année sur une production attendue de près de dix tonnes je n'ai même pas eu une tonne de rendement et cela est dû aux fuites de gaz euh, récurrentes notées avec les ICS. Cette situation porte préjudice aux maraîchers et joue négativement sur la recherche de l'autosuffisance alimentaire. L'État doit sévir pour résoudre ce problème. Très bien. Astou euh, très bien merci euh, ñu jeexale ak euh, suñu gan yi colonel d'abord euh, sa kàddu gu mujj ndax liñ ñu cërale woon ci waxtu jeex na jeex na tey xanaa contenté hmm. di mais tamit peut-être li mu bëggoon wax lépp mun ma ko wax waaw yoon ci li yoon yemun ci benn. waaw yaakaar naa ko. <laughs> waaw parce que comme wax na man technopole nañ ko woon nañ ko jéem a suqali. Hmm. ñun day ñun NCD. ña fa nekk gis nañ ñoo xam ne ñii tey dañu ngemb ne le président wax dañ ko si fekk si loolu jaar si ñun pour ñu liggéey loolu. in mhm. NCD donc moom nature communauté développement dafa liggéey population yi pour que loolu mën na nekk donc man loolu loolu foofu lay tàggoo ne daal. Mhm. ñu ngi déglu bu baax a baax a baax am na partenaires day xam ne ñooñu déjà gis suñu nañu li ñu dégg si président bi dañu bëgg a ñëw jaar si yéen pour mun na nekk. comme oote na kon nag ñun moom tamit ñun laay xamal ne ñun pare nañu pour jàppale président si li mu oote ne loolu nañ ko soxali mhm. gën ko aar gën ko saytu jërëjëf jërëjëf colonel euh, Issa euh, Cheikh mën naa wax président na takku mhm. na takk bu baax parce que euh, du yomb du yomb <laughs> dina bëri ay résistance mhm. te fi nga xamee ni nii foofu loolu la wax ni moom la bëgg a def mhm. loolu loolu la war a def mhm. foofu la mhm. kon na takk bu baax te aussi mu xam ne intérêt Sénégal moo nekk ci kanamam ndax euh, comme ni ma ko doon waxee rek yaakaar naa ni bu ñu jëlee zone bi pàcc par pàcc loolu day doon problème du neex rek régler il faut ñu jël zone bi dans intégralement intégralement ñu xam ne zone écogéographique bii fii la commencé fii la yem ñu defal ko plan d'aménagement. ñu protéger ñu ñu war a protéger. Euh, euh, ñu ñu wane ni ñu xool aussi yeneen menaces yi. am na menaces yoo xam ne mais mais société bu mel ni ICS lan mooy lan moo war a doon solution déplacement. mais oui parce que <laughs> parce que parce que fondamentalement fi mu fi mu situé. mënoon na déplacé wu facilement te du ko tere di continuer di produire acide sulfurique. kooku moom du problème. Mm-hmm. Euh, li ci am li ci garaaw mooy dañu ñëw fekk zone boo xam ni. suuf si baax na ndax fa la fi ñu exploité phosphate. loo fa bay mu nangu. Mm-hmm. xool foo xamee ni population yi dañu ko dëkkee di fa bay bay moo xamee ni ñun ñëpp moom la ñuy dundee euh, ñu daal di ñëw samp ko fa. mu mm-hmm. ngi fay bëgg yàgg nag mais pour man en tout cas bu ñu boolee bu ñu jëlee zone boobu def ko zone protégée industrie yi nga xamee ni yëpp dañuy polluer dañ fay génn. loolu mooy loolu c'est c'est naturel donc loolu ci boppam moom wa ñi ngi ko ciy xaar ñi ngi koy xaar surtout ci spéculation foncière bi ak li nga xamee ni nii mooy dégradation environnementale yi ñu ñu takkuwaat def reboisement zone bi yëpp ñi ko defoon bokk na ci li mu wax waaw ñi ko defoon vert la ko tuddee ëpp ñu ñu fulla reboisement massif waaw mais bi mu bi muy door a jël nguur gi dañu tasee Rio mu ne gouvernance vert moom moom lay def kii ma donc yow yàgg nañ ko colorier ne dinaa def lu vert dinaa def lu vert mais wax ko <laughs> ak jëf ko ndax boo defee boo waxee loolu ba pare ca suba sa nga jël euh, arène nationale wala nga jël benn concession jox ko ab structure boo xamee ni euh, amul lenn loo xamee ni dina ko indi ci mbiru euh, environnement lu dul dégradé ko loolu tamit day doon contradiction il faut contradiction yi ñu génn te li ko xamee li nga xamee ni moo koy yombal mooy politique d'aménagement du territoire boo xamee ni dañ koy penser bu baax ba pare nangu exécuter ko te mu cohérent bañ a nekk ci ay services yu bari nga xamee ni day tasaaroo loolu tamit bëri na lu muy yàq ci réew mi jërëjëf euh, Cheikh euh, Gueye euh, Fatou waaw je pense que après <laughs> problème bi rapport de force la parce que boo xoolee boobu ba léegi <laughs> gouvernement bi di jéem te tële mhm. c'est que y a des forces d'inertie mhm. il faut que mu jóg am ñu look ñooñu mhm. te loolu ñu si jiitu mooy ñi nga xam ni problème ba seen soxla soxal na leen ak ñi nga xam ne xam nañ mbir mi def naa ñooñ ñoo war taxaw parce que pour que président am fit il faut mu am ñu ko fital parce que parce que wax naa léegi 2014 ñett ñetti conseil des ministres def na ko ci te waxtu bu ñu ñëwaat ba 2019 bëgg-bëgg bi mi ngi fi waaw pourquoi du a du mën a jàll Cheikh wax na leen c'est que y a une mafia la volonté elle est là mais y a aussi une mafia y a mm-hmm. des forces d'inertie mm-hmm. donc euh, tout seul il ne pourra jamais se départir de ces forces mm-hmm. d'inertie il va falloir que ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ak ñeneen ñi nga xam ne comprendre nañu mbir bi jóg taxawal un véritable groupe de pression parce que j'ai dit l'approche des ONG ne suffit plus euh, mais li Cheikh wax c'est 180 kilomètres sur 30 à 35 mais mat na région. oui mat na une région euh, écologique. ñu am waaw une région naturelle. et puis c'est moo tax patrimoine ni UNESCO def patrimoine classé mais ñun war nañu am des patrimoines. Mhm. yoo xam ne ñu xool ni fii patrimoine Sénégal la. parce que li ñuy wax euh, gis nga euh, d'abord conséquences yi am mhm. man surtout pour dellu ci terminer ci problème mu femmes yi Hélène wax na problème mu stérilité bi mais yàlla problème du cancer des femmes mhm. te ñun d'ailleurs légumes yi ñuy lekk Adjani def na étude am boobu wane na ko nee na la 600 tonnes ak 1000 litres 1000 xaw ma lan de de pesticide mi ngi dugg ci assiette sénégalaise léegi te nee na ñun dañu def ne bu ko raxasee tuuti def ci eau de javel. Mhm. dana dañ nee na 20 pour cent rek moo ciy wàññeeku. kon terewul ñun lii ñuy lekk ci lëjum baaxul. Mhm. baaxul parce que parce que mi ngi yokk jabet bi. mi ngi yokk les problèmes cardiovasculaires mi ngi yokk d' autres problèmes d' infection que le problème du ak des problèmes plutôt de de cancer qui détruisent l'organisme donc loolu yëpp war na tax ñu mel na ñoom Cheikh dellu génnwaat ci seen parce que y' a pas de nouvelles études toutes les études ont été faites fait. le problème c' est de refaire une synthèse jëlaat peut-être que des des de de pour pour que population yi ci seen bopp comprendre loolu peut-être avec d'autres mhm. pour ñu mën a taxaw parce que je crois que taxaw bi dafa jot mhm. suñu taxawul fii ak deux ans ou cinq ans dañu dellu si waat les ñaari restaurants Euh, tels qu'ils sont. Tout à fait. Merci beaucoup. Hélène, dernier mot. Euh, waaw je voudrais Som... juste dire que. mu bañ mu bañ a nekk rek ay vœux pieux comme niñ ko waxee. ay slogan encore yoo xam ne fii ak quelque temps dañu gisaat ne concrètement defuñ ci dara. Mhm. problème bi am si ñaay bi tey bu ñëwee suba dem ci exploitation pétrole ba gaz bi nga xam ne ce sera toujours au large de la Grande Côte bu ñu réglewul problème mu ñaay bi loolu ñëw raxaat ci foog naa ne soo moytuwul dinañu jural loo xam ne dina doy waar donc ñu ngi wax ne ñu interpeller pouvoir public yi mhm. mu bañ a nekk juste un nouveau slogan mhm. wala mu nekkaat loo xam ne dañ koy lancer nii rek bëccu ko Mm-hmm. may wax Fatou ni ko aussi soo demee dans les localités que ce soit à Kayar à Mboro ailleurs dans la plus les jeunes sont en train de s'organiser il y a des organisations de jeunes mm-hmm. mais dañu leen war a aussi jàppale gunge leen mm-hmm. aar leen parce que gis naa ne am na forum bu fi waa mbooro yi def ñi doon liggéey ICS yëpp bokkoon ca forum ba pour dénoncer li xew ci gàdd ak ngomeen les gens ont dit yanaa ñoo xam ne dañu pare ñu daal di leen dal seen kaw daal di leen accuser wàññi leen sax indi leen ay problème ci seen liggéey donc loolu yëpp nekk na loo xam ne ni faatu wax il faut que ñu delluwaat gémb nit ñi aussi parce que ni ñuy wax ne il faut que mu am luy arrêté mhm. à la base pouvoir boo xam ne aussi dina janoo ak fii pour ñu def li nga xam ne moo gën ci réew mi gën gën ci gox bi mhm. merci beaucoup Hélène Astou euh, c'est malheureusement nous ne pouvons pas lire toutes les tous les commentaires. mais bon lu ñu voilà y en a euh, beaucoup ça sujet bi. Euh, vraiment euh, parce que ñi ngi réagir euh, depuis lors que ça soit sur WhatsApp Facebook et inbox. Mhm. donc lu ñu mën a résumer en résumé rek mooy que ni ICS bokk na ci li nga xamante ni interpellé na bu baax intéressé na bu baax sénégalais surtout impact bi nga xamante ni mi ngi koy def ci environnement bi. Mhm. peut-être. Euh, toutes ces réactions ne vont pas tomber euh, dans l'oreille d'un euh, gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñoo doon participer donc si WhatsApp Facebook vraiment depuis tout à l'heure et jusqu'à présent même les commentaires tombent mais mën nañ continuer di réagir pour ñu mën recueillir seen ay merci seen merci très bien. à vous merci beaucoup Astou Kane Dione di xam ne rek ne nos tentatives de d'interviewer Euh, les gens de des ICS euh, sont restés vaines jéem nañu leen euh, tàllal sunu micro waaye mu mujjul antu ngir équilibre de l'information donc euh, parce que il faut mu am les deux sons de cloche <laughs> comme am na accusation rek il faut mu am réponse mais malheureusement. nañ leen ubbil prochaine émission waaw ñoom ubbil nañu. ñu ñu wax fekkente ni. ils sont euh, intéressés mën nañu ñëw ci émission bi bu ko defee ñu joxe seen réponse mhm. n'est-ce pas voilà gërëm leen sant leen mbokk yi ñu doon teewlu euh, si seen émission lii di gërëm di sant sunu gan yi di Cheikh Gueye chercheur foofee ca Nda Tiers Monde ak kii di colonel Seydina euh, sal xam-xam ma Silla maa ngi jégalu xam-xam màcc wàllu aalam gi ci environnement nekkoon directeur bu parc nationaux yëngatu ci lu bëree bëree bëri ci aar li nga xam ne moo jëm ci alam gi gërëm euh, ki nga xam ne moo di Hélène di suñu euh, chroniqueuse ak kii di Fatou Sow Sarr Astukan ak techniciens yi nga xam ne euh, ñoom ñoo tax ba ngeen mën ñu seetaan dig leen daje dimanche bu si yàlla andee jërë ngeen jëf.